gars yi dama dama bëgg laaj dara xam naa nag toujours nee nañu man su may laaj rek damay créer ay provocation mais li ma bëgg laaj te ma bëgg see laaj question la nag boo xam ne sénégalais yëpp ñoo ko moom mais ana média sénégalaise bi comme tey Macky Sall la ba mu demee ci tournée banditisme boobu média bi yëpp gàddaay ànd ak moom ba defe naa waa leeral TV sax ndeysaan ñu am ñu ci ñàkk seen bakkan Euh, ana média boobu ana média boobu di gàddaay fu président di dem bu jox leen ay milliards ci suñu xaalis ana média boobu yéen média sénégalaise est-ce que tey may ñu leen raison pour ngeen gën a zapper lii média sénégalaise parce que c'est des bandits c'est des délinquants xoolal président Ousmane Sonko tey yëngal na àddina fépp foo nekk ci àdduna bi dégg nga ay kàddoom benn télévision sénégalais diffusé wu ko en direct man de gisuma benn xëy na nag mën naa juum mais gisuma ben télévision sénégalaise pour, bu diffuser coco en direct Et pourtant il est le plus suivi au Sénégal Donc, coco xamul sax xam même les bébés savent ça même les bébés savent que la personne la plus suivie aujourd'hui au Sénégal c'est le président Ousmane Sonko pourtant tey est nek plus di au Sénégal. mais gis naa cette tv télévision. Magister FM Fenen, magister, je suis allé visiter les télévisions du Sénégal mais ku nekk gis naa ko muy dem ci faykat yi ña nga xam dañ di fay pour ñu pour ñu diffuser leen seeni ay vous voyez la raison la vous voyez encore une raison de plus pourquoi ñu war zapper zappe pour le xam ne dafa télévision Sénégal mayatuñu leen waratuñu leen may visibilité da ngeen war des désabonné sur toutes les chaînes de télévision du Sénégal sur toutes les chaînes pas de déception xam ngeen de ñii nekkaluñ askan bi de télévision Sénégal Billahi nekkalu fi pourtant le président Ousmane Sonko son message est passé à travers les réseaux sociaux Si vous avez ci réseaux, yi dem WhatsApp yi YouTube yi dem fépp ci son message je peux te dire qu'il a eu au moins au moins dix millions de sénégalais qui ont eu son message au moins 10 millions de sénégalais ont eu son message Et pourtant Ben télé jëlul temps mu gore sax ne xaaral ma dem diffuser en direct parce que c'est pour les sénégalais vous disiez yéen a wax ci Ousmane Sonko c'est l'opposition principale au Sénégal yéen a ko wax de man waxuma lii yéen ñëpp boo leen ci média yi waxul Ousmane Sonko sax kenn du leen dans les médias sénégalais si vous ne parlez pas de Ousmane Sonko doomu du je vous lance un défi dem ngeen ci média yi bu ci Ousmane réseaux sociaux on est on a plus de on plus de visibilité que vous li ñuy wax tay Sénégal yëpp dina ci jot balaa suba ci suba yéen man ngeen wax ba dee ba may kenn du ko dégg xool leen le président Ousmane Sonko il est en Casamance il a fait remuer la Casamance ma lancé leen alerte nag les patriotes li jàngat la il faut ngeen désabonné wu sur toutes les chaînes sénégalaises sur toutes les chaînes désabonnez-vous ñu xool naka ndax mën dund ils ne peuvent pas vivre sans nous désabonnez-vous désactivez les cloches de de notice ne les regardez pas et ne les écoutez pas ñoom ñëpp dinañu dee nañ leen may le temps rek télé dootul amati njariñ ci Sénégal télé ci poche rek la doomu aadama yi di président Ousmane Sonko il li mu dem defi Casamance kenn mësu koo gis dans l'histoire de la Casamance personne ne l'a jamais vu mais nous avons nañ ne ñun seeni ay noon lañu pourtant président Ousmane Sonko le président de la moitié du Sénégal il veut être président de tous les Sénégalais Les médias tax média sénégalais vous n'êtes pas corrompu Ça, vous ñu leen ay corrompu voilà vous nous traitez de corrompus, vous nous traitez de nangam vous nous traitez de nangam on vous traite de corrompu y a vous jooy Vous de corrompu a pourquoi mais voici la raison l'opposant le plus catégorique l'opposant le plus féroce l'opposant le plus radical de l'histoire du Sénégal ngeen xam ko dindi le président Ousmane Sonko il est allé aujourd'hui en Casamance il a déclaré sa candidature pour maire de Gigajon. Ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. musul am milliards il n'a payé aucun franc toutes les personnes se sont mobilisées Nous mobilisé Nous nañ vraiment remercier ci li nga xam ne loolu lay def ci Sénégal adduna bi yëpp di ko déglu nag mu ànd ci nag ak ay dames yu brave yu bàyyi seen liggéey partout dans tous les coins du Sénégal saint Dagana Podor ñëpp dem nañ ay nit dem ngeen dégg ko yéen ñëpp yéen ñëpp ngeen déglu le président Ousmane Sonko mu yëkkati ay kaddu yu tàggi ne yu tàggi ne wax ko àdduna yëpp di ko déglu mu indi nag ay leeral parce que tey boo xoolee pour marsa su Macky Sall mi ngi bëgg a coow boo waxee ñu ne ce que Macky Sall en Casamance kenn mësu koo def Macky Sall benn pont bu vingt milliards la tabax Casamance te dina ko dem inauguré téeméeri yoon ak juróom fukk Macky Sall bu leen fàtte ne benn train ci tubaab yi benn société bu fay mille cinq jox tubaab yi Sénégalais yi de vingt milliards jox ci benn pont Marsassoum Casamance muy bëgg a et la Casamance Ziguinchor est la deuxième capitale principale du Sénégal la capitale économique boo leen demee xool Ziguinchor li muy dugal ci alal Casamance li muy dugal ci alal ci Sénégal amul benen région bu koy dugal xam naa ci lu man avec des chiffres clairs amul benen région ci ci Sénégal bu am njariñu région au Casamance ah les nag journalistes journaliste sénégalais il dit que nous, du ñu par là, nous, ils ne sont pas des mercenaires mais le président Ousmane Sonko est allé à Ziguinchor kenn ci de foule délégation la coalition autocopie topp pour ngeen déplacer, oui, il faut ñu jox leen ay milliards de carburant ay milliards la la de gars y waxuma ay millions de Non, j'ai dit des milliards ay milliards gars yi dama xam dama dama xaw am problème di dégg muy ci entourage bi ci dara ci bi donc bruit bi ngeen di live voilà mais vraiment que ñun ñu xam ñun nañu xam ñun nañu xam le président Ousmane Sonko est l'idéal président du Sénégal man tey sax ndeysaan yokkal na ma beneen xam-xam parce que pay Gambie bi xam naa montant total bi nga xam ne moom lañ ko defaree woon waaye masuma xam ne ndeke daanaka presque quarante quatre milliards si quarante ci quarante six milliards nga xam ne moom la ñu defaree pont Gambie bi ndeke te don la ndeke Macky Sall quatre milliards la ci def bëgg a rey àdduna bi nee moom moo def pont diggante Gambie ak Sénégal ndeke pont ba Macky Sall ñeenti milliards képp la ci def c'est extraordinaire hein. Macky Sall moo mën nga tabax sa étage ba pare mu ñëw jël crédit bi nga tabaxal naa doomu aadama yi ay étage mais c'est des bandits de grand chemin toujours prendre des des crédits qu'ils n'ont pas réalisé ay réalisation la ñuy gis ay réalisation ay réalisation ay réalisation Macky Sall ñëw man maa def maa def lii maa wax lii maa tegoon lii fale maa tegoon lale fale lépp nekk ay kàcc la ay Sénégal ñun fan la ñu jëm ak Macky gars yi mobilisez-vous heure campagne moo jot le président Ousmane Sonko a déclaré sa candidature man waxuma mu gagné Ziguinchor waxuma loolu de dama ne mu gagné Ziguinchor à quatre-vingt-quinze virgule cinq pour cent man newuma Ousmane Sonko waxu yàqu dama bëgg mu dóor leen à quatre vingt quinze virgule cinq pour cent loolu laa bëgg mooy Ousmane Sonko dóor waa Ziguinchor à quatre vingt cinq virgule cinq pour cent loolu laa gëm quatre vingt quinze virgule cinq pour cent mënuma jéggal leen ma de bébé laa àndal bébé mooy boos mënuma ci dara teewoon bébé laa àndal bébé mooy sama sama xarit mais mais ko duñ ko présenté nag dañ koy bàyyi moom mu lakkatu nii rek lakk kanam waaw <laughs> you sit down there wuy ma hey say hi Nail hi say hi day boy say hi defal hi defal nii sa loxo bi rek yëkkatil loxo bi nga ne hi gars yi dañu gis sa kanam gars yi ah yi ñoom dañu dañu gaaw a doomaate damay bañ fii ñu lay xaar am patriote yoo xam ne fii dañuy xaar seen doom boo màggee fii ñuy ñëw di wut si kanam loolu lay bañ voudrais recevoir des, des consignations de xam nga il faut savoir quelque chose si par exemple ñoom ñoo nangu ñoom ñoo nangu Macky Sall napp leen journée il n'y a pas de son il n'y a pas de son yi maa ngi jégalu de. son bi feeñul son bi le son yow la ñëpp nee nañu yow la. suba suba incha allah dans l'après-midi. on sera là pour décortiquer. suba dinañu ñëw ne moom la yëkkati Casamance. incha allah wax ci patriote yi naka la ñu mën a def pour contribuer à sa réussite. bu am la. maa ngi aussi euh, jéggalu gis naa ay cagnotte ay cagnotte yoo xam ne euh, ñu ngi leen di def à travers les réseaux ñu naan cagnotte xawma pour xawma euh, l'achat de la voiture de Ousmane Sonko je ne suis lié ni de loin ni de près ñun lépp lu ñuy def dinañ ko teg ci transparence dinañ ko teg ci yoon boo xam ne du doon dara loo xam ne ñun ñoo koy jël di ko gérer direct day nekk ci transparence donc quand yooyu ngeen di je ne suis lié ni de loin ni de près Je ne wax pas nit foo war a de a dugal sa xaalis ak foo ko dul dugal loolu sama affaire mais je ne suis lié d'aucune cagnotte ni de loin ni de près wax nañu mbiru oto blindé Ousmane Sonko bi et on a les moyens pour le faire et dinañu wax aussi nit ñi naka la ñu mën a def et on va choisir un nombre de personnes ku nekk li mu bëgg mu dugal ci loolu la ñu de mais jeté wuñu lancé wuñu benn cagnotte je ne suis lié ni de loin ni de près ci ben cagnotte pour muy leer parce que bëgguma ben jafé jafé. voilà teguma ben cagnotte ni de loin ni de près ni de loin ni de près nak. parce que xam ngeen ñun ñuy doxalee Lepp lu ñu teg dañ koy teg ci yoon bo xamné ne bi du dugg ci suñu loxo ñun directement parce que bëgguñu parti politique la bu tegu bu lalu bu nek ci ay yone bu am ay règlement donc man mënuma dajale xaalis ci sama tour diko ko jël di di am no xam ne lay laay voilà vraiment euh, nañu fexé lepp luñu man ñu protéger suñu président Ousmane Sonko bu subaa inshallah allahu rabbi dinaa ñëw ñu gëna yaatal waxtaan bi comme ça lepp lu ci nek rek inshallah ñu waxtaanee ko waa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dem leen enjoy nag xool sedd na guy. télé Sénégal yi amu leen jom amu leen fulla amu leen fayda te nekkalu leen fi askan bi ay dóorkat ngeen voilà la média sénégalaise. ay doorkat ngeen nekkalu leen fi askan bi nekkalu leen fi askan bi dama koy waxaat mu leer patriote il faut boycotter les télévisions sénégalaises pour la première fois dans l'histoire du Sénégal dinañu fal président boo xam ne peuple bi ñoo koy fal président boo xam ne peuple bi la fi nekkal wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.